merci beaucoup nous restons euh, pas avec les enfants mais bon avec les familles avec euh, Maïmouna Ndiaye Maïmouna ñu ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm. Ah, bisimilah bisimilah euh, ñu fas yéene tey euh, def gëstu bu yaa ginnaaw bi ñu la bàyyee nga nuyu. maa ngi leen nuyu yéen ñi ma bokkal euh, plateau bi comme àllarba bu nekk ñu ñëwaat ci beneen gëstu euh, bi la yoon aussi ñu ñëw rek euh, ci ñaari régime yi nga xam ne moom moo am ci sëy maanaam polygamie ak monogamie ak ban choix nga la nit ki war a mën a def ak lan moo ko ciy fekk maanaam daal dafa am anam yoo xam ne dañ koo war a tànnee te yow sa gëstu si loolu nga ko bëgg tënk maanaam communauté de biens wala séparation de biens naka lañ ci war a doxalee fexe ba daal gindi nit ñi yenn yenn du ñu euh, juum yenn saay nag mu nekk laaj boo xamante ni si dañu koy samp laaj boobu lee may mun a njaay mënuñ ci indil tontu ak Jafara Ba aji sëy yi ni ñuy nekkee ak ni ñuy yore seen alal doon ay tànneef yoo xam ni bi ñuy dugg ci néegu sëy lañ koy leeral ñaar mën a nekk bi ci njëkk ñu duppee communauté de bien lépp lu ñu am ci biir sëy bi dañu koy bokk di ko yor bu yàlla dogalee nag sëy bi amatul jeex na lii nga xam ne dañu ko bokkoon bu ñuy tas sëy bi dañu koy liquider maanaam àttekat bi dafa naan li nga xam ne bokkoon ngeen ko nañu ko liquider saytu ko daal di leen ko séddalewaat. mu am beneen tànneef di séparation de biens. moom moo gën a yomb ci mbir mi ndax loolu moom ñi nga xam ne dañuy sëy te jàpp ne ci sëy bi ku ci nekk am nga sa alalu bopp am nga say bien bopp loo indi lu ne ci sëy bi ëllëg bu sëy bi tasee loolu nga moom loolu ngay yóbbu. boo fa inee benn bool bu ñu tasee benn bool ngay yóbbu léegi-léeg nag bon xëy na aada dafay nekk ne jigéen bu sëyee ba pare dañ naan moo moom lal moo moom armoire moom moom kii waaye nag loolu yoon waxu ko bu dee da ngay séparation de bien ngeen nekk bien yi nga xam ne moom ngeen am ku nekk la nga indi ca sëy ba bu sëy ba tasee loolu nga moom loolu ngay yóbbu xanaa ñu may la. Awa loolu la xam ba tax na mu def tànneef bi mu jàpp ni moom moo dal xelam tey jii dafay wujje wante nee na daf ko teg ci anam yu leer. presque ci famille polygame la la yaro mais ñoom sama ki ma kilifa bi fa nekkoon bi moom deful séparation de bien mais dafa ne comme que dafa yoroon ay biens ay kër yu bare léegi nag mu ne euh, mu séparé ko ni mu ko séparé daal mooy jabar ju nekk ak njabootam benn kër. moom noonu la ko defee léegi nag képp kuy liggéey nag yaa xam looy liggéey li c'est sans problème mais nag au moins fekk moom njabootam du ñu tas tas boo xam ne bi day metti man daal ci loolu laa gën a jàpp daal moo moo moo daal sama xel ndax moom laa gis te vraiment gis naa ne famille boobu amuñu mujj gi division amuñu séparation daal ndax xale yi dañu demalante famille yi tamit léegi dañu demalante de même que borom kër gi dëddu na bu yàgg mais terewul ñu ngi nekk ensemble avocat bi di ñaax way dencante yi ñuy sóoraale ëllëg def choix bi ñu jàpp ni moo gën wante ci kaw ñu yore seeni këyit daas fanaanal merci beaucoup Maimouna merci beaucoup aussi maître Baba Diop Maimouna nee nañu ku nekk boo ñëwee li nga indi boo nga yóbbaale xale yi moom dañ ko bu ñu waxee mbirum xale rek bu boobaa yéeg wàcc am. fii ne yaay ne maay teeku jigéen bàyyi ne maay teeku góor gi. voilà mais may euh, kañ la ñu choisir euh, régime communauté des biens maanaam depuis loolu aussi est ci euh, polygamie dafay appliqué wu. Mhm. ngir tontu ci laaj bi damay leeral ni communauté de biens ci monogamie rek nga ko mën a def maanaam koo xam dafa opté pour benn soxna foofu rek la mën a valable nga xam ne di ngeen ne suñu alal yi ñun ñoo koy bokk ñoo koy séddoo bu fekkee polygamie la option boobu munta am parce que euh, dafa nekk régime bu exceptionnel moo tax même boo demee ci officier d'état civil bi boo toogee même boo leeralul ñoom dañuy coché bindal la euh, séparation de bien parce que leneen nu muy jur moo tax boo ñëwee automatiquement moom lañ lay defal bu dee leerul sax moom lañ lay defaan automatiquement. am na solo lu nekk quand même. je pense que c'est déjà une question de bon sens. <laughs> munoo ne mu munoo ne polygame ba pare ne ku nekk ci ñeent yi li nga am maa yow ñoo ko bokk ñoo ko bokk. te keneen ci biir mën na la ëppale sax. wala yu mel noonu wala après euh, problème am euh, bu boobaa yëg wàcc bi day mel ni day euh, doy waar. ci wàllu ndono bi nag nan la ñuy séddale mbir yi xaalis bi kii way dem ji bàyyi nan lañ koy séddalee ñi nga xam ni ñoom la dencoon mhm. ñi nga xam ni ñoom la dencoon moor Euh, mën na nekk ku góor gi moo njëkk a faatu wala ku jigéen gi moo njëkk a faatu ci cas yooyu yëpp euh, li ñu wax rek li yoon wax mooy euh, xaaj bi maanaam bien yi ñu am avant mariage bi ak après bi la ñuy jël daal koy évaluer bu bu ko defee ñu xaaj ko ci digg bi bu ko xaaj ci digg bi benn bi moom ça revient ak conjoint bi wala conjointe bi benn xaaj bi beneen xaaj bi tamit dañ koy xaajaat ci digg ba ki nga xam ne tey moo ñàkk moom dañ koy joxaat beneen xaaj bi mu boole ko ak xaaj bu njëkk ba te nekk xaaj ak beneen xaajaat beneen xaajaat bi nag bu ñu ko séddalee ci digg bi moom yeneen héritiers yi nga xam ne ñoom it ci lañ bokk ñoom ñu séddale leen ko loolu la yoon wax ça n'a rien waar voir ak euh, diine lislaam bu boobaa ñoom dafa am chart boo xam ne moom la ñuy topp mais euh, bu fekkee ci yoon la daal lépp loo leen am avant sëy bi ak euh, ci biir sëy bi dañ koy évaluer xaaj ko ci digg bi jox la nga téye déjà beneen xaaj ba ñu xaajaat ko ci digg bi joxaat la nga téye xaaj ba ca des héritier yeneen yi valable ñoo koy séddoo. loolu jigéen ñi ba dinañ ci gis seen bopp wala. ah mais loolu <laughs> loolu la yoon waxta boo amee say këyit aussi. Euh, teg ko fi li li li yoon santaane tamit noonu ngay def noonu ngay def pour bañ euh, bu ëllëgee ñu ne problème héritage moo am euh, ñu yéeg ko wàcc wala ñu naan kër gi kii moo am néeg beeg kii moo am pantale bi wala liñ ma jox dafa tuuti ma jox dafa tuuti waaw waa kay loolu loolu tamit day jur coow ëllëg mhm. ngir def choix bu baax moom lan mooy ngëneel li mhm. bu ñu joxee kàddu yi ñi nga xam ni xam nañ ci dara te ñu ngi cee gëstu bu ñu demee daal ba ci biir li ñu mun a tënk daal mooy euh, ngir nga noppalu noppal sa bopp da ngay def euh, séparation de bien nga xam ni ku nekk di xam man lii mooy sama alal boo demee ba ci biir nag bokkut ak dara Euh, Mor mi ñëw ne ah man sama kër gi kii laa koy jox loolu ça n'a rien à yooyu yow sa choix la loo xam ne ku mu neex may mais li gën daal mooy nga def séparation de bien ku nekk xam lii nga am lu ñu lay may wala lu la cee fekk mu fekk la ca sinon après da ngeen ni am problème parce que ñu ci bëri def nañ tey Euh, communauté de bien bu ñu demee tey kenn ki faatu yéeg ak wàcc bi dina bëri parce que foofu da ngay soxla certificat d'hérédité te certificat boobu bala nga koy am dinañ la indi certificat de décès nga indi ko te loolu du doy euh, dinañ la wax indil extrait de naissance bu dee ay xale lañ ñu xool ndax dafa am enquête bu ñuy def euh, bu dee xale yi ay majeur lañ dinañ leen laaj seen photocopie carte d'identité Euh, foog ak yeneen enquête yoo xam ne dañ koy def ci biir mu nekk procédure boo xam ni du yomb ndax euh, dañuy topp daal li li leen yoon may bu fekkee aussi ay compte bancaire la foofu dañuy bloqué lépp parce que dañ ne comme communauté de bien dañuy dañuy bloqué lépp xool càmbar xool lan moo nekk ci compte yi euh, def enquête ba procédure yëpp ñu vidé yëpp euh, doogal leeral xam nga loolu procédure bu yàgg la te day jël temps bu fekkee séparation de bien la loolu yëpp euh, tamit du la ci du la ci fekk Serigne gis naa grand bour ba mu ngi muñ rek <laughs> ñoom medun ñoom it ñu ngi koy joxoñ boobu ba tey di <laughs> jox xel bi. xam naa xam naa borom borom ñeenti jabar yi ah, la. ñoo ko yëngal. ñant la. Ah. ñett la bu biir ba. xëy na ah, xëy na peut-être bu waaw léegi euh, Cheikh euh, bu liyee fitna nañu bàyyi euh, quand le lion dort il la le laisser euh, dormir tranquillement ñu des xëy na ci may mun a tuuti ah, rek <laughs> balaa ñu ciy xuus may mun a yenn saa ñu gis euh, loo xamante ne si xëy na mu ngi euh, jeb bi ci société bi mu di une forme de protection boo xam ne dañ koy dañ dañ koy nemmeeku yenn saa yi ci ci jigéen ñi ndax bu njëkk ba da nga naan gis jigéen am terrain ne góor tabaxal léegi jigéen ñi ne ñoom léegi dootuñu ko nangooti ndax après conséquences yi. Euh, mm. cette crainte là cette appréhension là bu nekk léegi ci jigéen ñi dañuy dem ba dañuy surprotégé wu en fait. Euh, loolu asu man euh, sama sama xel bu gàtt li ko mën a waral mooy peut-être mbetteel yi am ci biir sa yi. Mm. peut-être nit ki mun nga ko wóolu ngeen dem ba ci biir mu wan na loo xam ne peut-être danga naan kii xàmmeetuma ko wala doxalee neen ni wala nee ngir bañ nag peut-être loola bett comme am nga sa ñu koy def ñu ci bëri dañuy bañ dañuy gis ay cas yoo xam ni nit ki jël na teere comme ni nga ko wax ne la tabaxal am kaay ma am naa sama appartement kaay nga ñëw gi dëkk wala yu demee noonu bu ñu demee ba ci biir niñ ko mën a tuddee mooy war waa jigéen tamit ñagas wala nga jàpp ni dañ laa war wala yeneen yu demee noonu nga nga mel neneen ñu naan dangaa soppeeku ak yu demee noonu moo tax ñu bëri tey jii dafa mel ni ñu soppi doxalin daal te seen seen yëfu bopp wala ndax lox ko de. mais généralement loolu la leen di tooñee. Mhm. jigéen ñi duñ la defal après elles vont. être là bañ koy wax. ça dépend si jigéen ñi rek ak seen comportement <laughs> man ça jigéen ñi tamit yéen jigéen ñi ak euh, yéen tamit seen comportement. ah def bañ ah, ah, mais mais tamit Cheikh est que quelque part est ce que quelque part tamit euh, confiance bi ñuy wax. Hmm. communication bi ñuy parce que bu nekkee da nekk nit ki nëbb ko sa bulletin de salaire nëbb ko sa maam boo amee napp hmm. nëbb ko ko boo amee or nëbb ko ne man damay beru finalement foofu néeg ba dootul yaatoo ci. ah, ah mais c'est sûr c'est sûr. Euh, peut xëy na ragal bi crainte bi mooy liñ ci li ci li ci kanam. ay ah, euh, euh, que suy amee projet de vie ak nit quand même mu waru leen nëbbante foog ngeen xamante lépp ku nekk xam situation. ga de. ku nekk ah mais mais waaw mais ku ku ku mais xam nga peut-être que peut-être que kooku poosam moo diis lu bari. bëri mais soo mel ni man nga xam ni des fois lay jàppale sax pour taaw yi <laughs> ko doo ñëw di nëbbatu. boo nëbbatoo sax amaana du kenn du la yërëm. kenn du la sax am nga lu ëpp. am nga te souvent c'est pas le cas. te en plus aussi. xam nga yooyu tamit jigéen suñ koy def tamit doom yi doom yi moo gën a tax xam nga soo ñëwee am sa terrain ni ko jox sa jëkkër mu dem tabax ko fekk ma ngay xalaat doom yi di wut fu fuñ leen kii parce que kii mën nañu bës mën na ñëw ngeen jóge fii kenn jóge fii euh, su ngeen amul fu ngeen dëkk day doy war parce que góor ñi tamit loolu la ñu war a jàpp xam ni mm-hmm. priorité bi njaboot ji la mais pas sa bànneex quoi sa bànneex jërëjëf Cheikh Tidiane am na sëriñ boo xam ne moom wala grand bourba moom absolument rek tout à en grand boobu dafa mel ne daal sujet yi ngay indi temps yi moom Chérif bugg cee xuus noonu. bugg cee xuus dafa kon bu. day bañ bu àllarba bii di ñëw ñu ñu dem feneen comme na tekkite kaar gi mën a mën soppeeku. ayca <laughs> boobu merci beaucoup Maimouna Maimouna dellu si waat ci euh, naka la euh, bokkee amee lii wala bokk moomee li ci biir sëy séparation de biens wala communauté de biens merci beaucoup Maimouna ba àllarba ak jàmm ak salaam. ba àllarba di ñëw. ci beneen gëstu. xanaa boobu da ngay génn néegi moom. comme ça boobaa moom damay damay ñëw feneen après ñu gisee maa ngi moom ci ruq. <laughs> ma xool ban la gën a sawar waaw. merci beaucoup merci beaucoup. incha allah merci beaucoup. la revue des titres avec Mouhamadou Lamine Samba c'est en wolof.